Assalamualaikum mbokki Senegal, Assalamualaikum mbokki Touba man batch sok, may waxtan ak yeen di yëkkati ay kaddu di nuyu serigne muntaha mbacke di ñaanal yalla bayiko fi ak jamm di jéggelu bepu mbokk murit rawatina sama sang yu bax yi sante mbacke ndax ojo bun monte audio buñ monté sama photo di dawal te loolu bañ koy waxtaane ci benn groupe bu ñuy wax ASC Ocas bu ne sama koñ ay football kat ak ay gone yoo xam ni yëngu-yëngu àdduna ci lañ nekk ci jamonoy campagne bi kenn ku nekk di kañ sa candidat ñuy toñit it mbàkke andal yi may àndal sax di leen di di di di leen di leen tooñ waaye niñ ma ko waxale ci groupe bi ba jaay ma àdduna waxewuma ko noonu loolu du sama wax loolu du sama cër ndax man murit la wala murit la bëgg doon serigne Touba la yaakar motax ma ñaan yalla di yewo Touba lima metti moy li ëpp ci samay xarit mbacké lañ sant ñom la yaakar ñom lay sago samay sang lañ kersa bima ci am rek moy ñima ma ki ma gën a jege may ak ma tok mu ngi jakkarlo man may def li vidéo bi mbacké la sant kon dal ma ngi ci am lu metti lool di ci jéggalu di ko ndax man euh, day sama mam bi jur sama yaay ñukay wax tali biran Fall talib seigne Omar Diop da doxé won jambour ba Touba kon ngir seigne Fallu kon nak japp naa ni man talib seigne Fallu la seigne Modou Atex Fallilu mi sama seigne mang koy jéggalu ci kaddu yi nga xamni mbacké dañ ko tek ci sama kaw mbacké di yéssalat sama tuub ak sama njëbbal xam ni sëriñ Touba rek laa yaakaar moom laa gëm ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ni euh, période bi tàng na ñu ne ñu am ay wujj politique wujj politique yooyu nag ñoo ko def génne ko waxe ko neneen waaye nag loolu lépp dama koy jël teg ko ne murit moom ndigal lay wéye ak jéggalu boo defee loo xam ni kat leer na la ne am na ñum touché te gëm naa ne am na ñum touché ndax ñëpp ngi may woo maa ngi jéggalu ñëpp di jéggalu yoon wi ak képp koo xam ne rek metti na la xam man na ma nit ñi xoole xam ni ku bëgg Serigne Touba laa ndax it loolu rek moo tax ñuy yëngu sama yëngu-yëngu àdduna bu ma wóoree ni du ma ci am ngërëmu Serigne Touba barke Cheikhul Khadim yàlla na dakk politique bi passion la rek ay ndaw lañ lépp luñ ciy dox pour xëcc ko rek indi ko ci dëkk bi lu baax ndax élection yi day jeex ñun ñëpp dañuy àndaat kon nag may wax suñu mbokk tit politiciens yi Nous avons raison garder parce que amna yenn yo xamni da ngay yak nit ki yak toucher sensibilité faire, te loolu warna mëna ñak ndax ay génération ndax wax ji lu ne ci te buñ ko défé gatch rek lay jur kon ma ngi jéggalu ñëpp di ni élection yi yalla na jeex ci Sénégal ki koy Sénégal lay jité Touba ñi ak ku mën di woote dañoo def seen devoir civique loolu jamonoy campagne la woon ñu doon waxtaan te période campagne am na ci loo xam ni euh, ay gone yuy waxtaan la rek mais man ñaanuma yàlla di jël kàddu gu ñaaw di ko teg ci njaboot sëñ Tuubaa loolu sax ni ma koy waxee dama koy tuub kon daal maa ngi jëggalu ñëpp képp ku seetaan vidéo bi maa ngi la koy ñaanal ci jëmmi Serigne Touba nga partagel ma ko ndax it metti na ma lool metti na sama njaboot metti na samay xarit waaye man lu may xeex ci àdduna ci Touba laa koy indi ndax saa yu ma génnee li may tiitaru saa Touba laa te loolu dara duma ci jóge saa Touba googu ma nekk moom laay doon tey moom laa bëgg a yeewuwaale kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.